ma tënk ñetti baat rek ci wolof parce que mënta ñàkk dama ko waroon di njëkkee ci wolof sax wax français mais comme francais bi xaw na ma yóbbaale sànq bi ñu may jox micro bi wante man ku ma xam-xam ne man wolof laay wax sénégalais yi sax suñ ma bëggee c'est parce que dañ ni Dame olof lay wax des fois sax benn maire laa dajal mun man yaakaaroon naan sax déggoo tubaab voilà donc. Euh, mu ne ma yow Dame Mbodj damay jamaa defoon ni sax déggoo déggoo tubaab ma ne ko ah wax dëgg yàlla de prof de lettres laa te am na liggéey boo moom dama ko booleeg jàngale bi ñu bëri ñu ma jege ñi xam nañ ko ci man mooy traducteur la te ku xam lan mooy traducteur xam ni dangay dégg tubaab dégg langue ba ngay ba ngay sotti te anglais la ma ne ko man de ñaari at laa jàngale ñu def ma conseil pédagogique wàññi samay heure pour may former les professeurs d'anglais ma leen di encadrer kon nag man yàlla may na ma loolu waaye nag loolu du tee may làkkale ma nàmp man wolof laay wax te ñiy wax fii wolof Sénégal bariwul ñu ma ko ci gën a dégg waaye la ñuy wax it ci yeneen kàllaama muy kàllaama tubaab it lan ciy wax mën naa ko cee wax kon nag bu ñuy wax bu ñu am complexe ñun dañoo gëm ni sunu kàllaama yii lañu war a jàngale suñuy doom parce que amul benn réew mu développé boo xam daa daa développé ci làkku jàmbur amul réew yi développé ci àdduna yëpp seen làkk réew la seen i doom di jànge fa la ñuy dale baa lu ñu cay doole ñu doog ko cay doole Sénégal rek ak réew yu mel ne Sénégal ñoom ñooy jàngal seen i doom dem di ko dalal di ko dalal ci làkku jàmbur loolu nag ñun bokk na ci li ñuy xeex ba noppi nit àdduna dafay ñëw pour jaamu yàlla subhaanahu wa taala ñëw ñu fi pour leneen comme ni ko Isaaxa di tout le temps ñëw ñu fi pour leneen lépp lu luñ fi def lu dul jiital suñu diine ci li ñuy def mooy lajj nañu te bu ëllëgee daan ko réccu moo tax sunu école bii danoo bëgg ñu dugal ci diine tappalekat yi naan ay laïcité ki ay laïcité ay tappalekat lañ dañoo yore seen diine ate bëgg koo imposer maanaam gëmuñu yàlla gëmuñu yonante bi gëmuñu dara boonam ñi gëm yàlla ñuy ay musulman ak ay chrétien seen i doom bu ñu leen jàngal seen diine ci école bi loolu musiba la kon Kisam authentique loolu da ko yàgg xeex yéen ñi ak ngeen ma dégg ma ciy wax lu ñu xalaat la école bu yees boo xam ni kii jëmm ji toog bokk na ci ñi nga xam ne xalaat nañ ko te bu ñu ko doxalee Sénégal soppeeku réew mi naat li ñu met ci sunu pénc mi jóge fi mun ñu koo régler feneen fu feneen fudul ci njàng mi bu ñu bëggee corruption wàññeeku ci njàng mi lañ ko mën a jaarale bu ñu bëggee nit ñi gën a xarañ ci njàng mi lañ ko mën a jaarale bu ñu bëggee nit ñi bañ a nekk ci mbedd mi di def ay ñaawteef muy lu mën a doon ñaawteef bu mën doon ci njàngam lañ ko mën a jaarale waaye ban jàngale est-ce que école bi nga xam si ka ko tëgg ab franc la ca France lawal ko ci euh, réew yi mu colonisé est-ce que école boo la ñu war a kon na di jàng kon yii question lañ yàgg posé wu ñun ki Cusems authentique te jàpp naa ne du ngeen ci dellu ginnaaw mm, taxaw xeex pour que ñu soppi école bi dëxañ ko ci sunu aada ak suñu cosaan ak suñuy diine yar sunuy doom ci ragal yàlla boo ragalee yàlla am xam-xam bu ëllëgee boo nekkee ministre wala nga nekk DG bu ñu la joxee ab euh, marché ni la signé ko fukki milliards la waaye defal fukki milliards ak ñaar ñu séddoo ñaari milliards yi doo ko def ndax da ngay xalaat yàlla subhaanahu wa taala xam ne bés penc mi ngi ñëw. kooku nag école bu am loolu buy produire ñu mel noonu moom la Sénégal war a am bu boobaa corruption jóge fi ak guerre. bu boobaa réew mi neexaat ku ci nekk loo yor xam ne lii ngay yore ëllëg da ngay toog ci kanam yàlla subhaanahu wa taala mi la fi andi sàkk la jox la responsabilité boobu nga war ko rendre compte kon école bu mel noonu la bëgg école boobu nag dañ ciy dox di ca jëm te Cusems authentique da cee war a liggéey pour que ñi nga xam si ñooy jiite réew mi comme réew mi dañoo bëgg mu soppeeku te ñi doon tappale sénégalais yi dàq nañ leen teg fi ñu jub di jubal di jubbanti ñu jubbanti waale école bi kon loolu Kisum Authentique da cee war a liggéey te am nañ ci yaakaar ndaxte président Bassirou Diomaye Faye mi jiite réew mi ak Ousmane Sonko dañoo ñëw pour jubbanti réew mi ñëwuñu pour nguuru kun fal dañ naan la boo jëlee alalu Sénégal daan la jaarale fi la war a jaarale daan da nga goxe la nga jël daan la tëj ci kaso bi te duñ la làq loolu mooy position bi de fal yëpp wax nañ ñu ko kenn du fi sàcc alalu réew mi alalu réew mi kenn du ko sàcc ñi fi nekkoon loolu lañ doon def loolu jóg na fi ku fi sàcc alalu réew mi daan la tëj ci kaso bi da nga ko goxi ba noppi di nga xam ne yow mii yàq nga sa àdduna parce que ñoom du ñu làq kenn pour ngay sàcc alalu askan wi parce que ñoom du nay sàcc. lii mooy dëgg kon nag Yaxya am naa ci yaakaar. ndaxte comme ni ma ko waxee ca université bu ndar lan xamante nga ñëw sama néeg ñu taw waxtaan ma dugal la ci syndicalisme maa la ci dugal boobaak léegi mat na fanweeri at ñuy waxtaan ma lay formé di la wax defal defal laa yi fu ma mënta dem nga demal ma fa ba tey ñu nekk ay jàngalekat bokk syndicat nga nga wut nga nga war maa wutu tey kon jàpp naa ni awma lenn lu may tiit parce que xam naa li nga mën ak li nga mënul man nag mënumaa boole nekk euh, secrétaire général syndicat ba noppi di jiite euh, euh, ab ab direction loolu moo tax munuma lu dul jébbal lenge keneen te yow mii nu koy jébbal nga xam yaay sama adjoint mate nga ko am nga xam-xam bi am nañ yaakaar ji ci yow mais nag damay ñaan ñi nga bokkal liggéey bi ak ñi fi nekkul muy ñi nekk ci département yi nekkal ñu fa ak bureau nationale bi ñoom ñëpp ñoo jàppale la yow it nga nangoo boot ñëpp di déglu ñëpp man ne ko ay Aïssatou waxee sànq man ñëpp laay déglu ku bokk sama syndicat ku bokkul sama syndicat fii ñëpp laa fiy recevoir salle de réunion bii yàgg naa fay recevoir ku nekk ku bokk sama seen man ku ñëw jàngalekat bu may wax du ma xool ndax ci man nga bokkam déet damay déglu li may wax lu ma ci mënoon def ko fii dama fii recevoir recevoir ñoo xam ni ci yeneen secteur lañ nekk nekkuñ sax ci njàng mi may taxaw di leen xeexal am nay entreprise bu ma leen a cité fii ci salle bii laa leen recevoir taxaw xeexal leen jàppale leen dem seen entreprise taxaw xeexal leen ba tey ji lañ doon ñaxtu tey saafarawu na man na li may entreprise yu bari yu bare baree bari yoo xam tey naruñu dañ leen doon fay salaire ñàkk fayda xeex naa ban yokk ko dañ leen doon euh, euh, daaw ñu leen defal ay cotisation sociale yu baax ña nga leen koy defal mën naa joxe exemple yu bare baree bari loolu nag dañ koy sant yàlla parce que seen syndicalisme bi ñuy def du rek di wax ci maxum njàng mi kese ñun dañuy nekk ci réew mi jàngalekat bokk ci réew mi waaye naan man ci njàng mi kese laay wax du ma wax ci réew mi loolu waxi caaxaan la réew mi bu naree yàqu nga ne sama yoon nekku ci bu yàqoo dañ lay fuufaale yow it parce que réew ma yàqu na kon boo seetaanee ba réew mi yàqu léegi fooy taxawati jàngale réew ma yàqu na kay léegi yàqu na ñëpp yàqu la nañ kon nag bu naree yàqu da ngaa war a taxaw ne du fi yàqoo loolu lañ def ci nguurug président Macky Sall nekk fi di jaay doole bëgg a yàq réew mi ñu ne dañuy taxaw ger suñu bakkan bañ bëgg ñoo cee rey mais mu jaral ñu ko ngir suñu réew pour réew mi du yàqu alhamdulilah nag yàlla teg na fi ay nit ñoo xam ne ñëwuñu pour yàq réew mi. danoo bëgg ñëw tegaat réew mi ci yoon lépp jaaraat yoon ñi ñoo jàngalekat yi foofu laay terminer na seen xel dal damay dem def nañ ma secteur général honoraire moom loolu moom comme formalité rek bu ñuy defal kuy dem la waaye yàlla na ma yàlla dimbali ba ma am temps boo xam ni benn ndaje bi am par at te ñu koy ñuy dajale kilifa yi syndicat bi yépp ñu nekk ci gox goxaan yi ñu war a ñëw daje fenn man maa ko war a présider yàlla na ma yàlla may temps te jàngalekat yi jaral nañ ma ko pour ma ñëw man koo présider waaye li ma bëgg a wax daal incha allah mooy kenn du ma dégg ci ngaañ jàngalekat loolu kenn du ma ci dégg amul àdduna lu ma fi jaral may taxaw di yàq mbirum jàngale wala di yàqal réew mi te yàqal jàngalekat yàqal nga réew mi kon kenn du ma dégg ci ngaañ jàngalekat li may li may dégg kay mooy wax kilifa yi jiite réew mi leen ci jubbanti bi nga xam moom la leen sénégalais yi di xaar te ngeen nekk ci parce que leen waneegun wane leen danoo bëgg a jubbanti réew mi nañ fexe ba. ñun tuddee ay décisionnaire ñu jëlee leen fi ñoom ñëpp ñu jox leen situation bu baax ñu nekk ay chargé de cours ñu fexe ba régulariser leen ñu am si ñoom ñooy ay MEPS ak e ñu reverser leen ñoom tamit lenteur administrative yi jàngalekat yi war a jot seen i këyit muy yeex na gaaw salaire yi nga xam ne tamit jàngalekat yi gisuñ ci seen bopp parce que dañ leen a boot yi am yeneen secteur yu ñu fay lu baree bare ñoom ñu fay leen lu tuuti jàngalekat nan yemale ñu yem looloot premier ministre Ousmane Sonko ñëpp dégg ngeen ko mu ni dañoo a xoolaat mbirum salaire yi kon ñu ngi ko cay ñaax moom premier ministre pour mu jëm foofu pour que ñu yemale ñu yem ñëpp. beneen bi nag mooy impôt yi daa bari. jàngalekat li ñuy fay ci impôt nee nañ ëpp na te man gëm naa ne ëpp na parce que système bi ñuy calculer impôt jàngalekat yi ci rappel yi système boobu moo baaxul. kon loolu ñu war a toog waxtaane la le camarade secrétaire général liggéeyal ci loolu. léegi nag comme ni ma la ko waxee sànq man damaa bokk ci ñi jiite réew mi. bokkoon ci ñi nga xam ñoo taxawoon tamit di xeex pour réew mi teguwaat ci dëgg te tey tegu na ci dëgg yow nga taxaw nekk tamit ci syndicaliste war a taxaw di defan jàngalekat yi mais comme ni ma la ko waxee sànq xëy na euh, postures yi bokkul mais ñoo yam objectif parce que ñëpp dañoo bëgg réew mi baax yenn saa yi nag xam naa ne daan jàkkaarloo waaye man comme ni ma la ko waxee man duma yàqal jàngalekat te ñi jiite réew mi it yàqal jàngalekat. parce que réew mi defara leen fi tax a jóg ñëwuñu pour nguuru kon jàpp naa ne benn jafe-jafe du am position bi ngeen nekk mooy bi ma nekkoon moom la jàngalekat nekk mooy dañoo bëgg réew mi soppeeku réew mi teguwaat dëgg jàng mi gën a baax jàngalekat yi gën a nekk ci euh, anam bu baax kon ñu ngi ñaan yàlla defal ñu ndam ngeen ànd ak ki nga xam ni man dama koy wax ñi ma xam xam nañ ni bu ñu nee Dame dafa am pertinence ñeq ma jege xam nañ ni ki nekk sama te tey nit ñi malheureusement gis nañ ko te daaw ñu ko gis mais nag euh, lii ñuy def mënu ko bañ a fekk muy Isaaxa Diallo mii lépp lu may def ñoom ñoo ko doon maa moom ñoo ci ñoo ci doon déggoo ma waxtaan ci ak responsable yi moo may conseil yan saa yi nag ma dëgër bopp ndaxte loolu mooy tamit li nga xam mooy dëgg Mamadou Lamine Fall ak ya ñu ma jege lañ comme ni ma yéen ñëpp ni ngeen ma jegee mais Fall toujours lu tax ma jox exemple mooy Fall mosuma ko gis mer mosuma ko gis mu am benn taxawaay bu dul jox ma cër jox ko ñëpp te mosuma gis Fall mer amul kenn ku mos a jàppanteeg Fall fii ñun nag xeex nañ ñu ba fii waaye yàlla defal nañu ndam ndaxte gouvernement bi fi jógee muy gouvernement Macky Sall dañ doon jaay doole. léegi ci kanam daañu wane oto bi parce que dama koy jox yeex ya moom mi nga xam ma wutu waaye oto bee ca lañ ma tiiree juróom-ñaari bal heure bi waroon naa fekk comme ni ko Aïssatou waxee ñu ne ici repose Dame Mbodj man lii waruma koon a fekke kon nag man sama dund gi dama doon wax ni li ma dese bonus la parce que man deewoon naa ba pare kun jóor juróom-ñaari bal ngay dund nga xam ne yàlla rek kay yàlla rek kay Karim parce que moom rek moom rëccal keneen rëccalu ma juróom-ñaari bal juróom benni bal yëpp dal nañ ci kar ci oto bi benn bi dal ci pënu kàttanu yàlla muy muy saret kon nag nañu am yaakaar ndaxte gëm naa ni lii nga xam ni moom la ñuy dund mooy ma jël yi nga xam ni moom ngeen ma dénk ci juróom-ñaari at yi nga xam moom laa jiite Cusems Authentique kon Cusems juróom-ñaari at du dara kon Cusems Authentique du syndicat bu yàgg man nag yàgg naa ci syndicalisme Cusems gën jóge tamit Cusems la boo xam si def na lu mat ñaar fukki at yu teg ci syndicalisme waaye ñun juróom-ñaari at rek la ñu amagun Cusems Authentique te ñoo ngi nii tey bokk ci syndicat yi ëpp doole Sénégal loolu nag du sama liggéey man kese de yéen ñëpp a ko doon liggéey kon doole jooju nag bu ngeen ko bëggee téye da ngeen di topp ci ginnaaw secteur général bii nu jox lenge yi waajal euh, wàcc ci terrain bi wax ak jàngalekat yi gën a yaatal ba nga xam ne Kisum authentique dina gën a am doole bu ngeen waree organiser congrès ngeen jàpp datu congrès organiser congrès démocratiquement ngeen xool ku ngeen bëgg a fal ngeen fal ko loolu mooy dëgg. am nañ yaakaar nag comme ni ma leen ko waxee parce que Yaxya am na expérience parce que lépp lu ñu doon def ñoo ko doon defandoo. lépp lu may def dama ko ci doon laaj xalaatam ginnaaw ma ci waxtaanee ki moo yore stratégie bi muy yoon wi nu war a jaar toujours bu ma ci waxtaanee moom pare ba mu des rek dox doxal ko. dama ci laaj xalaatam laaj ci xalaatu euh, Mamadou Lamine Fall secteur administratif laaj ci xalaatu ñi am ñoom lañ ko seqal yéen su ma cee xeeb kenn. ku ci nekk di la laaj sa xalaat bu ko defee loolu moo tax daawun juum. kon nag yàlla na yàlla def ndam. yal na yàlla def jàngalekat yi ku ci nekk la ngay ñaxtu ay saafara am ci euh, yal na yàlla def sunu système éducatif bi nga xam ne li ciy sooxe bari na ñu mën a toog waxtaane ko ba li ciy rëq-rëq ñu jubbanti ko jàpp naa sax man ne buñ bëggee mu baax dañ koy jël moom système éducatif bi tege ko ne dem tëggaat suñu système éducatif boo am dañuy nuru loolu jàpp naa ni ca lañ jëm incha allah yàlla na ko yàlla def pour muy njariñu Sénégal ndaxte réew boo ko bëggee defar da ngay jiitu ci say doom boo jiituwul ci ñoom boo leen bàyyee ba ñu sëxañ ci nu la neexul pour nga jëlee leen ci dootul yomb kon bu ñu bëggee réew mi jag ger jóge fi mbon gu xeetu mbon yi ñu metti yëpp ci réew mi jóge fi nan njëkk ci suñuy doom bu ñuy njëkk suñuy doom nag dañuy fexe ba ñag leen ñag suñuy doom nag mooy li nga xam moo nu fi indi jiitu ci ñoom mooy diine kon nag njàng mi kenn mun cee beddi diine ñoo xam nag ay franc-maçon lañ nekk ca France tëgg seenum njàng teg ko ci ña gëmuñu diine ñëw nag di ko lawal ci réew yu mel ni Sénégal buñ ca konnee tënk bu ëllëgee mën nañ ci am ay duma ñun ñëpp kon nag jot na ñu toog waxtaane njàng mi loolu na ci Kisum Authentique liggéey lii daal laa amoon lu may wax di wax ne maa ngi sant yàlla wax dëgg yàlla ba mu kàttan ba ñu kàttanale ñun ñëpp kàttanal ma man mii ba résultat yii nu am ñu am ko ñun ñëpp di wax ne nag Kisum authentique ca kaw ca kanam yàlla nañu yàlla defal ndam donc serions-nous orphelins de notre SG national fraîchement nommé DG d'une agence nationale le couronnement de dame est très normal son dynamisme a fait le tour du Sénégal ses argumentations aussi lourdes qu'un quintal Vous avez parlé quand tous se sont tus. Aujourd'hui, vous voici logiquement promu. Votre caractère véridique est de tous connu. Votre pertinence en débat nous aura plu. Dame et son fameux Layam Layam. Dame l'homme fort de Géoul à Sangalkam. Le QSEMS A, authentique, vous remercie sincèrement et vous prie de continuer ardemment sur le chemin de défense des enseignants. Ceci est votre ADN précisément. Nous ne voulons pas être orphelins bon sang. Ibra Sow, un de vos permanents. li ma mooy j'étais en train de rédiger un ouvrage et vraiment je serais très honoré que nga préfacel ma ko vraiment di sant encore une fois Mamadou Lamine Fall comme ni ko waxee il est vraiment courtois il est très serviable waaw man il y a un an avant may xam monsieur Dame Mbodj sax avant ma koy xam lañ ko doon woo téléphone suñu école muy régler ay cas donc pour dire vraiment que voilà c'est un homme très très serviable a Fall aussi dama koy woo à n'importe quelle heure comme ni ma doon def SG Dame Mbodj heureusement su ma ko woowee sax moom bu ma ko jotul mooy ma rappelé donc vraiment merci pour ça les amiru ñi nga xam ne vraiment amiru aussi voilà mu ngi noonu daal syndicat bi gën na gën na neex en tout cas donc euh, monsieur monsieur Mbodj bon vent yàlla na yàlla defal la jàmm ci yoon yan bi nga woyu euh, bi nga yenu cette fois ci merci beaucoup. merci. Euh, donc merci pour euh, d'abord les propos de, du SG sortant d'Ambot euh, pour la belle leçon de syndicalisme qu'il vient encore de nous donner et également pour euh, la riche expérience et également les conseils et dirais-je la, la feuille de route même qu'il a tracée pour le QCMS e authentique c'est-à-dire de rester sur sa ligne revendicative de défendre l'école publique également de défendre euh, le Sénégal, toujours, et également de nous donner un peu de courage, surtout aux enseignants, pour le dire que le SG qui va arriver, c'est pratiquement son jumeau, celui qui l'a formé. Et nous aussi, qui étions dans le QSEM, qui y sommes toujours, nous avons travaillé avec euh, SG Yahya Fall aussi. Donc tout ce que SG Dambodj a dit, nous, nous l'avons vécu. Nous l'avons senti. Nous travaillons avec lui. Et Dieu merci, nous avons pratiquement toujours fait le travail ensemble. Donc euh, pour ne pas également monopoliser la parole, euh, je vais donner peut-être la parole à Monsieur Matarba, le plénipotentiaire du QSEMS qui a, QSEMS Atlantique, qui a beaucoup travaillé avec Yahya Il va peut-être nous dire un peu quelques mots le SG entrant Matar voilà Et bonsoir euh, monsieur le directeur général de la SOSIP Et bonsoir monsieur le secretaire général euh, national du CUSEMS-A euh, entrant cher doyen Diallo Fall chers camarades Euh, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole en cette journée solennelle marquant la passation des services entre le secrétaire général M. Dambouj, euh, nouvellement nommé secrétaire, directeur général excusez de la SOSIP, et le secrétaire général entrant, M. Yahya Fall. Et c'est pas facile de parler de monsieur Yahya Fall parce que c'est quelqu'un qui a énormément de qualité et on m'a pas donné beaucoup de temps mais c'est juste pour vous dire euh, parler de Yahya Fall c'est parler de Damboj c'est parler de Mamadou Lamine Fall c'est parler également de Doyen Diallo nous sommes les cadets de ce syndicat, mais nous avons eu à les pratiquer. Euh, ça encore ou pendant des années. Et ce qu'on retient de, surtout du secretaire général entrant, M. Yahya Fall, euh, ils sont très, très, très disponibles, très courtois, très modestes et rigoureux dans le travail. Rigoureux pour servir ou bien pour défendre les intérêts des enseignants et enseignantes du Sénégal. Moi, j'ai eu l'honneur de travailler avec euh, le nouveau secrétaire général, M. Yahya Fall, à travers le mouvement national, pendant les élections, à des rencontres et des rencontres. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise très bien le milieu éducatif. C'est quelqu'un qui connaît également le champ syndical. Et avec ça, je sais que va s'atteler, à travailler avec les membres du bureau national, avec tous les secrétaires généraux euh, départementaux, avec tous les enseignants à lutter pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Lutter pour une meilleure une école sénégalaise de qualité et une école également, comme l'a dit notre secrétaire général sortant, chez Damboj, une école qui repose également sur nos valeurs. Donc je connais Fall, il est très disponible. Très disponible. Là, même hier, dans les groupes WhatsApp, quand on a annoncé que la passation de service va se faire aujourd'hui, La réaction des enseignants était unanime. Donc c'est quelqu'un qui est très disponible, quelqu'un qui est courtois. Je crois bien que le syndicalisme commence par ça d'abord. Il faut être disponible, il faut être courtois, il faut être sympa. Mais il a une qualité également extraordinaire. Il a une capacité d'écoute. Il nous appelle à tout moment. Il n'arrête pas de nous conseiller. Il n'arrête pas de nous donner des orientations. Et J'ai également une petite anecdote même euh, ou deux. Euh, la première, c'était l'année passée, euh, juste après les élections de représentativité, quand les deux syndicats hmm, voilà, du moyen secondaire, le, je veux pas nommer les, les noms, ont commencé à donner des mots d'ordre sans en tout cas associer le QSEMS e authentique. un jour, je lui ai parlé. Je lui ai que, bon, oh, qu'est-ce qu'on attend pour réagir euh, C'est qu'il m'a dit que attendons la réaction de notre secrétaire général. Damboj est un dinosaure en matière de syndicalisme. Et Dieu lui, a, Dieu lui avait donné raison. Parce que la fin, elle a été heureuse quand même pour le QSAMS authentique parce que ces deux syndicats ont fait des mois de grève avec des ponctions et sans gain de cause. Donc cela montre que c'est quelqu'un qui fait attention à son secrétaire général. C'est quelqu'un qui faisait attention à son mentor dans le champ syndical. Et c'est quelqu'un également qui avait beaucoup d'estime à notre secrétaire ou à notre directeur général d'Amouy. C'est important. C'est ce, qui va, c'est ce qui lui confère les qualités qu'il a aujourd'hui. Donc on a beaucoup d'espérance. Moi j'ai beaucoup d'espérance parce que j'ai, j'ai, eu à le pratiquer dans des rencontres. J'ai vu comment il prend la parole, quand il prend la parole, comment il, euh, il plaide pour la cause des, enseignes, des enseignants. Donc, euh, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler euh, beaucoup, mais je sais que vraiment le QSEMSA, c'est la maison euh, de la sympathie, de la modestie, de la courtoisie et de l'aimabilité. Sincèrement, c'est ce que j'ai vécu ici au niveau du 16 en tant que permanent. Et beaucoup de collègues ou camarades qui sont là également ne vont pas me démentir. Donc voilà, c'est pas facile et j'ai de parler après euh, la parole donnée à notre secrétaire, à notre dame ce c'est pas facile. Mais on a essayé tant bien que mal, d'apporter quelques témoignages à notre nouveau secrétaire général. Et on vous souhaite vraiment plein de succès et également bon vent à notre directeur général. Merci beaucoup. Merci Matar pour ces propos. Donc nous avons sans tarder donné la parole au SG entrant, euh, Yahya Fall. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah alors bonjour euh, mon grand frère je vais dire je ne vais pas dire DG je ne vais pas dire EG aujourd'hui donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais parler et je crois que est-ce que j'aurai les mots pour dire ce que j'ai dans le cœur je ne pense pas pour reproduire fidèlement les sentiments que je ressens aujourd'hui je dis que Dame Mbodj est mon grand frère Et je l'ai considéré comme mon grand frère, lui et le doyen Isaac Diallo. Depuis 1996, nous sommes ensemble. Ce que je connais du syndicalisme, c'est grâce Je suis géographe, j'étais un technicien au niveau du, euh, de la, euh, du CIRAD. On s'est retrouvés parce que je l'ai vu en train de se battre comme chargé des revendications du QSAMS. Je l'ai après